wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di leen gërëm ci topp gi ak safoo gi fii ci daaray kaamil ñu nekk ci barnaamiju quraul xadim muy barnaamij bi nga xam ni dafay jàngale alquran aw njànginam waaye ci maqra u naafi diggante warsh mi nga xam ni lu ëpp ci réew mi moom lañuy jànge ak xaaluun mi nga xam ni moo di seexam cib sëriñam fa mu jële kenn mënta jàng benn bi nag te jàngoo ba ca des ndax ñoom ñaar ñoo bokk fu mu jële kon maqra naafi la ñuy jàng di sukkandiku ci téereb durarul lawaame muy téereb durarul lawaame boo xam ni dafa dajale wala mu'tamad la sukkandikuwaay la ci fànnu tajwid fànnu qiraa bu fekkee yaa ngi jàng maqra'u naafi ñu ngi woon ci buntub idhaar izhaar ak idgham ci diggante warsh ak qaaluun waaye izhaar ñun buñ ko dee jàng ci tajwid daanaka dañ koy jàng rek ci buntub ahkaamu nunu na waaye buñ koy jàng mën nañ koo gën a yaatal ndax am na yeneeni bunt yu xuraaw yu wuute yeneeni bunt yoo xam ni ñaar ñi bokk sëriñ sax dañ cay wute léeg moo tax mu indiwaat tey buntu baabu hël wa bal hël wa bal ndax laam googu ñaare dañ koy faral di idgham moom it ci araf wa ca dañ koy faral di idgham ci xarafam wa ca topp su fekkee xaraf wa dafa niroog moom muy wenn wi kenn werantewu ko dañ ko cay idgham hmm? léegi bu nekkee mutajaanis hmm? comme qur rabbi qur laam googu boobitam kii la waaye bu dee xëlwa bal nag dañoo am seen attey bopp yoo xam ni dañ koo am ci maqra u ñu jàng bayti ka aadatina wa yuzhiraani halwa bal liltaai walzaai wattaai maan wathaai wa yuzhiraani ñan la hmm? qaaluun ak warsh ñoom ñaar dañuy izhaar hal wa bal hal wa bal luñ izhaar laam ga la ci jublu luñ bokk ñoom ñaar mooy laam gi sukkoon ci mujj ga hal wa bal dañ koy izhaar kañ li taa i bu fekkee taa dafa dikk bi maana hal ak bal dafa ñëw taa topp ci bu boobaa dañ koy izhaar ñoom ñaar wa zaa i wa i maan wa i kon andil na la ay xaraf mooy to zo ta tha xaraf yooyu yépp nee na xaalu nag warsh dañ cay idra dañ cay izhaar hëlëg bal su fekkee benn ci xaraf yi sës na ci moom jeexagul wa daadi mujaman ak daad ji nga xam ni dañ koo tomb mooy dood day bañ nga jaawale ko sodd moo tax mu ne mujaman wa xarfi siini ak xarafu siin wa zaayi wa zaayi ak xarfu zaayi zil jahri gi nga xam ne dafa am ak jahr wa xarfu nuuni ak xarfu nuun wan xaraf moo ñëwul ci xurufu safir yi xarfu sadd xarafu safiir la kon tuddul safir bu noon safir kon ñett yooyu day dugg waaye dafa topp ay xaraf génne na ci aw xaraf woo xam ne bokkoon na ci buñ toppee sarxa bi dafay wax ni wa yuzhiraani ñoom ñaar yuzhiraani danañu izhaar hal wa bal li taa yi su fekkee dafa sës ci taa comme bal tabaa allahu bal tabaa allahu nga xam ni to moo topp ci bal gi wallahi ak mu toppee ci za comme bal zanantum bal zanantum bal zanantum wa wa zaa i la de wa taa i comme bal taatihim bal taatihim maan wa faa'i ak faa comme hal suwiba hal suwiba al kuffaaru hal suwiba kon andil na la misaalu ta ak zo ak to ak fa ci alquran ban la kañ la hël walla bal di ko jiitu su boobaa bu ko jiitoo ñëw yooye topp ca nan lañ koy jànge mooy dañ koy izhaar leer na waaye jeexul wa doodi maan wa doodi mujaman ak dood ji nga xam ne dañ koo dañ ko dañ ko tomb muy dood waxul sood comme bal dollu bal dollu xaraf yi boo ciy jàng ci alxuraan di nga xam lu tax ñu ni dañ koy izhaar ndax boo ko jàngee te teeluwoo ca mën na ko mën nga koo mën nga koo duggalante ndax fa ñuy jóge day léeg day am lu ñu bokk mooy tax jaxasoo di ca am pour nag nga def effort wu setal xaraf wu ca nekk moo tax mu nekk ab règle ci ma ci ci maqra wa xarfu siini ak xarfu siin moom it comme bal bal sawwalat lakum anfusukum amra bal sawwalat laam gi ñëw sukuun ba pare siin topp ci mooy xarfu siini wa zaayi ak xarfu zaayi comme bal zaamtum bal zaamtum zaay googu dafa am jëhër jëhër ci sifaat yi la bokk moo jàkkaarloog sifa bu ñuy wax hëms moom it di ko leeral leeralu cof gënul li gënoon mooy ñu dem ci buntam dafa am xaraf yoo xam dafa am jëhër am xaraf yu am hëms ak rixwa ak istifaal ak istila bu ci nekk ay melokaani xaraf la te xaraf woo ci joxul melokaanam woowu danga nga koy yàq mën nga koo tudd ci maxrajam waaye boo ko joxul melokaanam danga nga koo yàq hmm? ñun ñaar mën nañoo génne ci bunt bi ñun ñett kii génn raam ki génn di daw ki génn di tempu ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu génne waaye bokkuñu nu ñu fa génne ñàkk bokk nu ñu fa génne nag moo tee ñu niroo xaraf itam mën nañoo bokk fu ñu génne ta ak ta ñoo bokk fu ñu génne waaye to ni lam ni gémmiñ gi di mel làmmiñ wi di ko fooru xam nga fooru oh, léegi léegi waa waa bool sax déggatuñu wolof foor mooy lu ñu xëcc dangal ko ba mu dang booy foor tama am ndënd gone yi bu ñu daan foor walla foor dara mooy nga jàpp ak buum dakk ko ci dara di ko xëcc ba mu dang dang mooy mooy mooy contracté ci français noonu la làmmiñ wi di mel bu fekkee da ngay tudd to masalan dama lay wax rek lan mooy sifa booy wax to to to boo xoolee fii dafa dëgër làmmiñ dafa fooru ba pare kotomu jëm kaw kotomu xam nga kotomu kotomu mooy inkimaas mooy mooy mooy waa lemu daal di jëm kaw to ba ngay wax ta làmmiñ daa daa bàyyee ko ta làmmiñ daa lalu daa lalu mel ni basang ah ba pare wàcc suuf nga ni ta ta boo xoolee ñaari sifa bu ñuy wax sifa mooy noonu gémmiñ gi di mel jamono ja ngay tudd xaraf wa jëxru ak hams dafa am xaraf yoo xam boo koy tudd sa baat day jëm suuf maanaam day mel ni xaraf yuy déey la am xaraf yoo xam boo koy tudd sa baat day kàndan xam nga kàndang day raisonné day kàndang day mel ni nga dooroon dara ci weñ mu naan teng teng teng ngay dégg muy dem noonu di raisonné dafa am xaraf yuy def noonu xaraf yi def noonu zaay ca la bokk moo tax mu ni zil jëhri boroom loolu nag mooy jëhru loolu danañ ci àgg incha allahu ci bindi boppam yoo xam ni danañ ko gën a faram fàcce wa xarfi nuuni ak xarfu nuun kon bu fekkee zaay dafa ñëw bal jiitu ko comme bal zaamtum bal zaamtum li tax mu tudd fii zil jahri mooy xaraf yi euh, ñàkk bokk ci sifa soro ci sifa day waral sore ci sifa wala soree ci maxraj day waral izhaar jege ci sifa wala jege ci maxraj day waral idgham loolu moo tax mu tudd la zil jahri gi nga xam ni jahru googu nga xam ni nekkul ci nekkul ci xarafu laam nekkul ci xarafu laam gi nga xam ne moo nekk ci bal wala hal ndax ñoom xarafi lin omar la bokk lin omar moom xaraf nekk ci diggante liin ak dëgër la loolu it danañ ko jàng ca kanam insha allahu taala kon wa zaayi zil jahri wa xarfi nuuni ak xarafu nuun xarfu nuun bu dikke xarfu nuun bu dikkee topp ci laam kom lu mel ni bal naqdifu bal naqdifu bilxaq ala al baatil bal naqdifu moom it bu boobaa day yéeg ci catégorie xaraf yooyu xaraf yooyu limaat ko ba jàpp ko qaayida bi mooy ci maqra'u naafi ngay jàng xaaluun wala ngay jàng warsh moo ci yam bis boo ko defewul nii buñ la dee atte ci xaaluun dangaa yàq buñ la dee atte naafi da ngaa yàq buñ la dee atte ci warsh da ngaa yàq buñ la dee atte ci xaaluun da ngaa yàq bu la nee ñoom ñaar def nañu kon loolu mooy maqaraw naa fi moo tax fii bi muy tàmbali mu ni wa yuzhiraani ñoom ñaar dañuy izhaar bul ni mukk xaalun laay jàng war si ni la koy jànge ma jànge ko ne déedéet ñoom ñaar ñoo yem foofu ndax ñoom dañoo am fu ñu dëppoo am fu ñu wute hmm? kon dañuy izhaar hal wa bal bu boobaa tam hal ak bal ñoo ci yem ndax wax naa la liñ bokk ñoom ñaar mooy lan mooy laam gi mujj te sukkun ba noppi mu diw xaraf du fi'l la xaraf lañu ñoom ñaar ñëpp laam da caa mujj ñoom ñaar ñëpp laam nga daa sukkoon ci ñoom ñaar ñëpp kon ñu bokk àtte bi lool la hmm? dañ koy izhar ci araf yi jàpp ko bu baax to to ظا تاء فاء ضاد سين zaay nuun muy ñaata xaraf juróom-ñett juróom-ñetti xaraf yi takk ko aw bayit ngi nii bu ko dajale nafsi saba zabyun zaha ضحى ثوى توقى طمع muy nuun siin zoo zaay dood saa taa taa ñu bay ñu firi firiwaat bayit yi mu gën a leer ci ñépp bu defee ñu tëj bind bind bi foofu defe naan misaal ci alxuraan jël nañ ko misaal moom bu la ko indilee man nga koo yokk su dee am kàng man nga indi yeneen fukki misaal yu ñu gisul woon waaye li am solo mooy nga dégg ko nga xam ni bara boo jëlee baat sàngam ci barab sàngam mu indil la nàngam kon misaal moomu day yantabiqu day day day day day tege ca kaw loola fii ak amul istisna boo jàng ca maqra ba bu istisna amul rek misaal ma da cay tegu kon loolu mooy maanaam wa yuzhiraani danañu izhaar ñoom ñaar warsha qaaluun hal wa bal dañ koy jàng ni hal kom comme buñ doon jàng bal taba allahu dañuy jàng bal bal taba allahu bal taba allahu bal ba mu mat sëkk nga ni taba allahu nga xam ni doo fa noppi waaye da nga koy teqatle ba mu mat bal taba allahu hal hal bal ta'tiihim bal ta'tiihim wala dañ koy izhaar li taa bu nekkee taamoo ca sës wa i ak zaabu ca sësee i ak taabu ca mooy ñaari tomb maan boole seen wa i ak ñetti tomb ya muy ha wa i ak daad mujaman gi nga xam ni dañ koo ijaam dañ ko dañ ko dañ koo tomb du du waaye saad kon bokkul ci xaraf yi tey wa xarfi siini ak xarafu siin wa zaayi ak zaayi mi nga xam ni ci safir la bokk dil jahri bi nga xam ni dafa am melokaanu jahri wa xarfi nuuni ak xarfu nuun muy euh, fukki muy juróom-ñetti xaraf yoo xam ni bu ñëwee topp ci buntu hël wa bal kon jàng nañu qaaidatu hël wa bal ci diggante warsh ak xaalu